message bi ma jox xale yi nga xam ne ñu ngi tàmbalee dugg ci tux mi moo ñu seet bu baax mag mi ñi doon tux mag mi nga xam ne yaa ngi ko gis ci koñ bi te muy tux ba toll nii mu toll te yow tollagoo foofu xale bu ko xool rek message bi ko mag mi jox mooy ndekete su ma tuxee ni mag mii laay def su ma tuxee man ni mag mii laay def nga xool meneen mag moo dul tux nag nga xool ko soo tuxut ni mag mii ngay mel nga seet ñaari mag yooyu nag ban man mag moo la ci gënal nga jël mag moomee ndax nañ gis mag muy tux benn yaram ba xaw a yàqu gémmiñ nga xaw a yàqu làmmiñ yu noonu caf kon li muy lekk noonu looxo yoo noonu nga xool mag moo xam ne yooyu yëpp dara sikku ci moom tabarkàlla ci ci ak bindinam nga gis ñaari mag ñi nga tànn ci benn yaakaar naa ku ne woon xale tànnal li muy tànn mooy mag mi nga xam ne du tox ba toll fii mu toll kon loolu laay ñaax xale yi jigéen ñi ma di leen ñaax ci wax ne moom dafa rafetul ci jigéen benn baaxul ci wér-gu-yaramam baaxul ci amum amum doom akum njuram kon ñoom tamit leen di ñaax ñu bàyyi ko rawatina bi ngay nekk xale yu baree bari mbirum xale daf la ciy dugal ba màggee danga nga koy rëccu ginnaaw màggagul leen nag xool leen ñi mag ñi koy def ngeen xam ne bu ngeen màggee fi ngeen di mujj ngeen bàyyi ko jërëjëf